mbokk internet Dakar Net ñu ngi leen di nuyu di amaat mbégte ak contentement toujours comme ni ñu koy waxee di àndaat ak yéen ci seen émission réponse à l'actu réponse à l'actu toujours ñuy indi ki nga xam ne nii xam-xamam màcc na ci wàll wi mu ñu fas yéene waxtaane fi li nga xam ne ni mooy actualité bi tey ñu janook ak ki nga xam ne ni kenn dootu ko présenté ci euh, réew mi muy ak sax international muy kilifa kilifa nuyu nañ la maa ngi lay fay euh, bu baax a baax a baax di nuyu mbokk internet Dakar Net fépp fu sénégalais nekk di ñaan jàmm fekk leen fa ñu nekk ñoom ñëpp ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. d'accord ñu fas yéene fi waxtaanee actualité comme ni ñu ko waxee tout à l'heure ko doore ak li nga xam ne ni mooy libération Ousmane Sonko Ousmane Sonko bi ñu ko libéré yow ban jàngat nga def ci réew mi après sa libération noo jàngatee réew mi. waaw euh, c'était une libération de Ousmane Sonko doublée d'une doublé d'une libération du peuple. Parce que le peuple souffrait de liberté. peuple bi mu ngi doon souffrir ci justice te à chaque fois un peuple bu demee bay souffrir ci liberté soxla justice amu ko daf koy foqatil boppam daf koy jëlal boppam ma lay jox benn misaal di la jox benn exemple événement bi nga xamante ni suñ génération peut-être mooy bi njëkk a marqué l'Afrique et les Sénégalais mooy le 23 juin le 23 juin peuple bi dafa demoon ba soxla ba mar ku ko teewal ci pencum ndaw réew mi malheureusement ñamu fa yebaloon pour ñu teewal ko nekkal fa benn nit waaye bi peuple bi demee ba xam ne ñi nekkal nekkaluñ leen fi benn nit lañ fi nekkal nar a jëmee réew mi foo xamante ni da koy delloo ginnaaw peuple bi dañu futteeku taxaw jàkkaarloo nekk seeni député bopp foqati légitimité bi nga xamante ni joxoon nañ ko cent vingt ou cent quarante personnes ne leen pour ñu représenter leen te defuñu ko ni ñu ko war a defee peuple bi nangul ko seen bopp. bii tamit dañu fi toog 2012 ba léegi ñu gis ni ki nga xamante ni moom mooy le gardien de la constitution. moom la ñu dénk luy justice moom la ñu dénk luy liberté moom la ñu dénk luy démocratie ñu gis ni justice bi daf ko jël def ko yatam bi muy dóoree képp ki nga xamante ni safu ko def ko mbàjj mi nga xamante ni moom lay sàngee képp ki nga xamante ni safoo na ko ñu gis ni démocratie bi nga xamante ni ay ati ati ati at sénégalais yi dañ ci topp ngaf ngaf ngaf ngaf ngaf ngaf di ci xeex ba yàlla suñu borom may ñu ci ay jéego ay avancé ba ñu nekk ba duggoon ci topp 10 bi nga xamante ni génn nañ ñu ci démb ba duggoon ci ñu gis ni démocratie boobu ñu ngi koy salfaañe te xeex euh, avenir jox nañu raison ndax ñigi bi ñu xeexee keroog tey jii wala démb xëy nañ gis ni senegal génne nañ ko ci top diis ñu gis ni tamit ki nga xamante ni moom moo war a sàmm àq ak yelleefu doomu aadama yi daf koy sàmm la koy safoo di ko xañ ñi nga xamante ni daf dañ koo soof askan bi nag jug nekk juste su boppam askan bi jug ne kenn du salfaañe suñ démocratie askan gi jug ne suñu ay liberté kenn du ko jël di ko moxoñ moxoñee taxaw am ci jéego naam ñu ngi naqarlu ci anam bi mu amee. voilà foofu lañ jëmoon sax parce que wax nga ko léegi euh, ñu ngi la dégg nga ni askan wi dafa foqati mais est-ce que y avait pas trop trop de violence. waaw xam nga Mohamed soo delloo ci trois mois ci ginnaaw maanaam euh, décembre le 31 décembre rek léegi def na trois mois. président de la république le 31 décembre ci discours à la nation bi mu doon def journaliste bi wax ak moom ba ko kan les gens se manifestent di takk ay sagar yu xonk mu tontu ni leen man duma gis sagar bu xonk bi ñuy takk loolu mooy mépris xool leen beneen façon bu ngeen di wane seen naqar wala lu leen naqar wala lu xool leen beneen façon bu ngeen jooyee wala bu ngeen contesté xam nga sa doom tey jii boo koy dóor dina ne teg am na regard bu mu lay xool di nga xam ni bàyyi dóor yi may dóor neexu ma doom ji nga jura ah, dina dem ba am fu mu toll di ko pousser boo ko dóoree mu fayu kon violence bi dañ ñu ko imposer dañu ko exiger te booy xool aussi quand on parle de violence c'est pas le peuple qui était violent le peuple n'a jamais été violent ci benn manifestation parce que aussi ki nga xamante ni xeer la jël di ko sànni te ñañ koy sànni ils bien protégés parce que ay casque la ñu takk ba pare yor ay par ay par pierre nga gis ci wetu ñooñu am ñu nekk seen wet du ñu ay policier du ñu ay gendarme yore ay gourdin yore ay fetal yore ay ngànnaay di ko jëmale ci askan bi nga xamante ni dañu taxaw di naqarlu ak di contester kon ñoo violence bi c'est de l'autre côté ñoom ñoo violent mais c'est un peuple pacifique déterminé am nag fonds ak endurance ci bu bëggee xeex li nga xamante ni moom la moom wala bu bëggee nangu li nga xamante ni yëfam la attan na ko topp weer bés bu nekk day nekk ci mbedd mi di ko di ko kii nii te violence mënut a weesu suñu constitution may askan bi fu ñu amee lu leen naqar yi nañu génn ci mbedd mi dajaloo police encadré leen ñu taxaw wax ko jooytu ko buñ paree delluwaat seen kër yi ñooñu ngay leen du ngeen ko fi defee loolu mooy violence violence mënut a weesu ñu jël justice dénk la ko ne justice bii kat dafa war a sax protéger ñi nga xamante ni ñooy ñu faible ñi ñu amul doole nga jël justice boobu di ko gën a tooxalee ñi ñàkk doole ba pare di ko protégé ñi nga xamante ni ñooy sàcc alalu askan bi violence mënut a weesu loolu. violence mënut a weesu démocratie bi nga xamante ni dañ ko xeex ba mu am fu mu toll benn nit war ko xool nu mu ko protéger wala nu mu ko gënee tóoj mu jëm ci kaw nit kooku bëgg ko jël di ko salfaañee violence mënut a weesu yooyu yëpp kon je le peuple n'est pas violent mais c'est les gouvernants qui sont violents. mais gis nañ ko parce que violence d'accord mais toujours ñu gis tamit ci côté bi doon manifester muy la population dem nañ ci bay yàq ay alalu jàmbur loo xam ne ni ça n'a rien à voir ak ak l'État. nous condamnons fermement mais man je ne pense pas que c'était les manifestants ñi nga xamante ni xeex démocratie xeex ak ak yelleef xeex liberté de droit xeex justice moo leen taxoon génn c'était pas eux. dañu infiltrer nag te ñi may wooyee infiltrer mooy n'oublions pas que ni dans chaque pays du monde am na ñu ñuy wooyee les braqueurs am na ñu ñuy wooyee agresseurs am na ñu ñuy wooyee sàcc am na ñu ñuy woowee yeneen ak yeneen ak yeneen bu événement yi nu mel amee dañ ciy profito dañ ciy profito am na ñoo xamante ni aussi c'est des innocents mais tamit mu tombeek tamit nit ñi xiif fu ñu dajjee foo xamante ni barab bu ñuy jaayee lekk la ñu dugg fa jël lekk ya génn ak moom kon loolu c'est un message alors euh, loolu lu ñu condamné la lu ñu naqarlu la waaye tamit du ñu di ñu génnoon di manifester waaw. d'accord je touche du bois on parle de on parle d'apaisement mais est-ce que yow naka nga jàngate sortie Adji Sarr moment bi ñuy waxee apaisement am na ci bi ñuy wax apaisement cest dire euh, xam nga apaisement du yem ci lu ñuy wax mais boo ko waxee ba noppi da nga koy jëfee da nga koy jëmmal nga génn taxaw def un discours ne nañ leen seddal parce que nous sommes une famille ba pare ñu xëy gis un chimpanzé un vieux singe kenn xamul fan la jóge taxaw def Euh, euh, def une sortie di jiiñ ñi nga waxante ni sa famille añ sa waa kër lañ di leen jiiñ terroriste muy le ministre de la justice dem bay dugal réew mi ci loo xamante ni yàlla du ko mësa seetaan du ko ko mës a nangul maanaam na sénégalais yi maanaam na sénégalais yu xam ni léegi affaire bi ethnie ak ethnie la Sénégal benn ethnie moo fi am muy la sénégalais. nu sommes un peuple uni kenn mënuñu diviser te ku koy essayer wallahi azim yàlla dina la toroxal bëccëgu ndax kàmm nous sommes tukuleur nous sommes joola nous sommes séeréer nu some soose nous sommes wolof nu sommes bambara nu sommes manding et cetera et cetera et cetera nous sommes un peuple uni nous sommes des sénégalais kon je pense que ni Macky Sall doit recadrer ou même renvoyer so ministre de la justice ñu ne déet na waaye un autre vieux simpanzin un soi-disant avocat ñàkk fulla ba mel ni boroom kër bu ñuy dox di ko ñand bu ñuy dab di ko ñand taxaw jël teg benn xale bu jigéen di ko waxloo ay conneries man foofu ñi may condamné mooy les droits de l'homiste ak ñi nga xamante ni dañuy xeex pour les droits humains parce que ce jours là la dignité, la dignité humaine a été bafouée. Quand je regardais muy wax métit ak naqar ak yërmande laa gënoon a am maanaam benn nit bu ñu jàpp en otage def ko une marionnette def ko benn buubu golo bu ndaw di ko def loo ay conneries di ko waxloo ay conneries vraiment Alaaji Diouf da da bi affaire déclaration boobu pare dañ ko waroon a fekk fi mu nekk. ne ko ràpp ci kaso bi parce que kooku kooku kooku xamul lan mooy euh, lan mooy la dignité humaine genre yu mel noonu sérieusement bu ñu nekkee ci réew nga ne da ngay woote apaisement et les laisses nga bàyyi leen ñuy wax lu leen neex di def lu leen neex vraiment je suis désolé wala Macky Sall yëgut ni yëgut ni ñi faree ci moom ñu ngi ñu ngi def loo xamante ni ça n'apaise pas Macky Sall yëgu ko j'espère qu'il est qu'il n'est pas au courant parce que mënuloo ne apaisement ba pare ñi faree ci yow génn di wax ay wax yu ñàkk fayda di def ay jëf yu ñàkk fayda yu xeblu yu doyodi sérieusement su fekkente ni loolu mu wax lu mu gëm la na ko jëmmal na ko dëggal ci ay jëf donc vraiment Macky Sall doit revoir euh, son entourage. d'accord Y'en a gis nañ ne. président Ousmane Sonko après sa libération ñëw na seet leen naka lañ ci mën a jàngate alliance ou bien encore soutien. xam nga Mohamed Y en ñu ngi ci dix ans d'existence et je pense que ni fi ñu taxawoon su fekkente ni rek euh, dañuy wax te yàlla tax juguñu fa un mouvement citoyen. un mouvement de veille des sentinelles de la démocratie mouvement boo xamante ni il est là pour protéger et pour préserver les libertés un mouvement qui est là pour se battre contre l'injustice alors je pense que ni suñu position boobu bougé wuñ ci d'un iota ci dix ans d'existence c'est-à-dire ku yor suñu couleur di nga di par euh, c'est des alliances naturelles li ma ciy naqarlu rek mooy bu mu nekk des alliances circonstancielles Ousmane Sonko c'est très normal après un combat qu'il vienne rendre visite au mouvement Y'en a marre et c'était pas la première fois peut-être boobu bu ñu bu ñu médiatiser la mais il y avait une première fois il était venu dans notre QG nous rendre visite on a discuté échangé et tout mais bii peut-être leneen la et c'est très normal parce que moom la injustice bi daloon ci kawam te gis nañ ni après Y képp ki nga xamante ni taxawoon na rek donte nga ne ànduma sax ak Ousmane Sonko waaye liñ nekk di ko bëgg a def nii injustice la su Ousmane Sonko yëkkatiwul téléphone am woo la ne la ah maa ngi lay jaajëfal bi bi bi mu ko mënee taal na otoom dem fekk la ba fa nga nekk ne la maa ngi lay jaajëfal que les gens le comprennent ainsi. D'accord, léegi on peut parler donc bon li ma expliquer je pense que c'est clair que les gens le comprennent ainsi bëgg nañ teg injustice ci kawam sénégalais yëpp jug taxaw ne injustice bi du ci dal de la même manière ni mu ni mu jógee ñëw jaajëfal njokkoo njal yaanaa maar noonu la ko defee defee sax ci Ahmed Khalifa Niass kon je pense que ni Euh, mbir mi moo tontu sax boppam. maintenant maintenant pourquoi d'un seul coup Y en a marre a décidé de rejoindre Ousmane Sonko pourquoi pas Adji Sarr dans un premier temps parce que moment boobu mën nañu xamaguñ ce qui s'est passé réellement on parle de viol on parle d'accusation et vite fait Y en a marre rejoindre Ousmane booy xool ci premier communiqué Y en a marre bi njëkk. Hmm. ba dernière conférence wala dernière déclaration wala dernier communiqué Y en a marre mosoo ñu dégg ñu wax ci viol bi. Ousmane Sonko c'est un élu un député du peuple mu xëy un citoyen sénégalais porte ko plainte c'est son droit fii kuñ fi tooñ wala ku fi am lu la naqari da ngay dem fa mbaxana doonee benn ba mu demee fa mbaxana doonee benn porte fa plainte bi coow li jógee suñu yoon nekku ci dañ ne nañ ko régler entre ñoom ñaar waaye bi ñu gisee ni nag état mu ngi ciy dugal loxam bëgg a jël li nga xamante ni mooy ay droit wu Ousmane Sonko di ko bafoué ci lañ taxaw njëkk a alerté bind suñ premier communiqué ne procédure bi ni mu nekk nii di jaaree di jàllee rafetlu wuj ko te bu ngeen ci continuer duñu toog seetaan yi on a alerté ah ñoom tamit ñu tànkam continuer ci seen procédure euh, volonté wu bëgg a éliminer non seulement un citoyen sénégalais un député du peuple mais un opposant ah ci la ci la ci la Y'en a ne nag ni on est interpellé tey jii Macky Sall mi nga xamante ni c'est le président de la République du Sénégal ku bëggoon a jóg di teg injustice ci kawam di nga jaar ki suma cadavre il a été élu démocratiquement fin de mandat am 2024 la je te donne exemple tey ku jógoon ne ma nañ ànd pour déloger ji ko wala maa ngi déloger ji ma ki Sall man maay njëkk a taxaw arrêté la avant ay police ak ay gendarme ak ay armée yooyu yëpp di la arrêté parce que injustice injustice la mën a tudd ku ko mën a dund. di ñu gis ki sa wet. donc délogé bi ñu doon wax yow délogé boobu yow àndoo ci. non man je man je suis démocrate man li ma gëm mooy des élections se passent dans des urnes. Mhm. voilà quoi. Macky Sall mu ngi ci deuxième et dernier mandat wam nañ ko bàyyi mu yeggali ko ci jàmm ak salaam. donc gëm nga ni deuxième et dernier mandat parce que question troisième mandat. mais moom sax gëm na ko Macky Sall sax gëm na ni mu ngi ci dernier mandat wam parce que. tamit Macky Sall tamit il faut pas que sénégalais yi jàppee ko benn benn monstre boobu noonu. Macky Sall da am na dafa am ay nawle ñi may woowee nawle mooy ay doomam. Macky Sall du fi taxaw xam ni lii mooy moom. buñ ko bindul moom moo taxaw génne ko muy ay kàddu mu wax ko xanaa buggul buggi fi bàyyil ay doomam way way way woo xamante ni seen bàyyi moo waxoon te fonkul kàddu donc il faut pas que pour man nit ñi waruñ ko def sax débat c'est clair et c'est net Macky Sall mu ngi ci deuxième ak et son dernier mandat donc nañu jàll ci leneen kay mais fi mu ne nii moom wax gi du ay ndax dina présenté waa 2024. d' accord d' accord si discours am bi gi passé gis nañ ci mu ne mu annoncé ay milliards yu bari pour jeunesse bi ban jàngat ko def ci milliards yooyu. c' est bien ay milliards yàgg nañ fi dugg te man li ma gëm mooy Macky Sall yàgg na génne ay milliards. pour création d' emploi. mais malheureusement malheureusement ces milliards ont toujours été détournés. par ñi nga xamante ni ñoom la koy teg ci seen loxo loolu mooy problème bi ah. mais ay milliards bon état du Sénégal yàgg na ko jël ne fexe leen sax fukki ndaw am ci liggéey mais ñañ koy jox ñoo koy jël kay def ci li ñuy woowee détournement de deniers publics waaye la ma cay condamné waat ca gannaaw ga rek mooy Macky Sall mosu ci ko kenn. kon loolu tamit yaa angi su roche am na lu ciy ñuul am na lu ciy ñuul soit daf leen koy jox ñu wàññeeku gëmloo ko ni ko def nañ ko fi ñu ko war a def ndaw ñaa ngi liggéey macha allah jàppal bàyyil moom mu ñàkk vigilance bañ a dem contrôler ji loolu soit ñaar ñii mooy am walla daf leen koy jox déclarer ko mais ci suuf. ñëw ñu retourner injecté li nga xamante ni mooy benn partie bu gën a ndaw maanaam bu dee cent cent bu dee cent milliards ñu injecté vingt cinq milliards yi soixante quinze milliards yi ñu wàññeekul ko ñëw ne ko soixante quinze vingt cinq lañ dugal euh, gëmloo gëmloo nañ leen daal ni cent la ci ci ay chiffres ci ay factures ak yooyu mais vingt cinq lañ injecté alors soixante quinze yi léegi yow da ngay jël cinquante ñun ñu seddoo vingt cinq yi pour entretenir suñuy militants wala man ci entretenir parti bi. dama dama dama dama dama wax ndax est-ce que du noonu la demee. mais Macky Sall le président de la République man fi mu ne nii mooy suñu interlocuteur. suñu yoon newul ci parce que les ministres de Macky Sall ont fini de nous montrer qu'ils sont incapables et incompétents donc notre interlocuteur direct c'est Macky Sall. Macky liiral nga reliraat la dernière lettre de Abdoulaye Wade ton entourage là les jusqu'au boutistes yooyu nekk sawet faluñ leen faluñu leen kenn du leen topp dara yow lañu fal yow lañu dénk il temps nga taxaw duma la wax looy ciy def nag mais il temps nga taxaw lépp li ngay dund bokk nañ ci li la ko yóbbee lépp lu la dal tey bokk nañ ci li la ko yóbbee te lépp lu dal tey Sénégal bokk nañ ci joué nañ ci am nañ ci 75 pour cent de de de de de de part de responsabilité mais nag tey jii ma jël suma dépense di ko joxee te duma ca am lu ma neex sañ naa téye suma dépense wala sañ naa changer ka ma koy jox wala anam bi ma koy joxee kon Macky Sall aussi am na ci à cent pour cent part de responsabilité. ok maintenant boo doon def benn comparaison ci régime Abdoulaye Wade ak bu Macky Sall qu'allez-vous dire. bon comparaison ci. seen résime li ma mën a li ma mën a li ma mën a wax daal mooy li nga xamante ni mooy. et surtout ci euh, côté démocratie. foofu laay ñëw foofu laay tontu quoi parce que sérieusement ñun Macky Sall bi mu ñëwee ci deuxième tour yi bi mu ñëwee suñu QG euh, liñ ko wax dégg na ko. te li ñu wax presse bi aussi mu ngi mu ngi des ci bu ngeen duggee ci internet bi gis ko gëmuñ ni moom mooy kiy changer Sénégal mais au moins li ñu doon xaar ci moom mooy mu préserver suñu acquis démocratique yi li ñu doon xaar ci moom mooy au moins as néew acquis des libertés yi ñu amoon bu ko mënul woon yokk mu préserver ko li ñu amoon as néew ci justice Mhm. wala li ñu ñàkkoon ci justice mu renforcer ko mhm. li ñu doon xaar ci Macky Sall mooy des pouvoirs séparés des institutions séparées exécutif du mën a nekk exécutif du commander législatif ou judiciaire c'est ce qu'on attendait de Macky Sall alors euh, bu may def comparaison wax dëgg yàlla ak yonent bi mhm. su Wade Euh, y avait au moins ce qu'on appelait la démocratie parce que bu amul woon dama lay jox exemple bu ndaw ah. mm-hmm. li i Sall def ba éliminer Karim Wade ak Khalifa Sall. Mm-hmm. ci ci ci ci ci ci ay joŋante Ablaye Wade mënoon na ko def pour éliminer Macky Sall. Mm-hmm. mais au contraire Macky Ablaye Wade daf ko bàyyi ne ko ñëwoon ñu jàkkaarloo sénégalais yi tànn. alors kon sérieusement côté boobu moom y a même pas photo. boo demee ci côté liberté Ablaye waa du ko puisse dire lu ko waaye mën a waxal euh, au moins bu daan def ay affaire am sax daan na daan daan déglu askanam ci côté liberté parce que dafa gëmoon loolu moo ñu ko moo ñu ko doon wax donc sérieusement y a même pas y a même pas une comparaison à faire mais il ne pas trop tard Macky Sall li ko dese mm-hmm. ci mandat mën na dabu mën na dabu xam ni réew moom surtout Sénégal gii moom Serigne Touba xeex ak tubaab bi ba kenn nootuñu ba ñu nekk de personnes libres maam Alaaji Malick maam Boukounta Ndiassane maam Limaamu Laay ak Cheikh Ibrahim kazalika def la même chose mm. je pense que ni réew moomu moom ku yee benn nit à trois heures du matin ne ko réew moomu mën nga dem ba di leen dicter mm. li nga bëgg ñu koy def ah euh, waruloo ko gëm le ministre Yankoba Diattara il parle de d'une disqualification de Ousmane Sonko pour les élections de 2024. xam nga Yankoba Diattara comme moom ñoom moo mooy du moom mooy ki nekk ci IDI. oui waaw comme ñoom dañ mm-hmm. leen a disqualifié. te l'économie numérique ministre de l'économie numérique. Mm-hmm. waaw xam nga comme ñoom seen parti bi du mooy bu ñoom Idrissa Seck. Mm-hmm. waaw comme ñoom disqualifié nañ seen bopp. ñoom xam nga disqualifié nañ seen bopp. nañ seen bopp mooy discrédité nañ déjà seen bopp. tey ji sa Seck bu taxawoon di jongante ak Macky Sall entre sa Seck ak Macky Sall bu ñu doon dem élection. Mhm. moi je voterai Macky Sall. Mhm. sérieusement je voterai Macky Sall. kon kooku xam nga euh, disqualifié na boppam moom. donc lafeñ borom mbaam lay faral. Mhm. ba Diattara mooy sa Idrissa Seck sa Seck moom mooy mburu kee mooy soow Macky Sall alors. <laughs> donc ñoom fi mu ne nii luy neex Macky Sall rek la ñuy bëgg di wax. waaye jom nit da ko war a am. te maa ngi maa ngi maa ngi soog dégg nga lii nii mais bu dee ba moo wax loolu. franchement Yankoba euh, c'est quelqu'un que je respectais. mais vraiment il a plu mon respect sérieusement quoi. sérieusement il a plu mon respect waaw. Ouais. en tant que jeune sa dernier mot ban conseil ngay jox ban message ngay lancer jeune jeunesse su sénégalais surtout actuellement ak euh, tension yi ni mu bëree. message bi may lancer mooy le patriotisme. le don de soi. C'est le peuple qui doit libérer les populations. C'est le peuple qui doit libérer le pays. C'est le peuple qui doit dicter sa loi. C'est le peuple qui a le dernier mot. Donc restons mobilisés. Parce que y des échéances à venir. maanaam ay mbir a ngi ñëw ci kanam donc nañu garder li ñuy woowee cette mobilisation bi am mooy maanaam tey jii on a fini de comprendre que ni Sénégal kese moo ñu ñor te képp ku nar a jël Sénégal teg ko ci anam yoo xamante ni neexut ñu walla arrangé wul Sénégal dinañ taxaw jàkkaarloog yow di wax tamit kii ñëw jàppale kenn ñun askanu Sénégal pour mu arriver au pouvoir xeexuñu kenn pour mu jëlee ko ci pouvoir. mais dañuy xeex ànd bokk gis-gis pour teg Sénégal ci raay donc euh, que le peuple soit conscient. que le peuple reste euh, de de, de rester euh, continue d'être conscient parce que voilà quoi le peuple c'est un peuple conscient mais bu ñu mës a nelaw bu ñu mës a nelaw le combat vient de commencer quand je dis le combat vient de commencer nag. beaucoup pense que je fait allusion à Macky Sall Macky Sall c'est juste benn xeer bu nekk ci sunu yoon donc da nga koy def nii pousse ndànk rek nga continuer mais nous avons un long chemin à na nu def Macky Sall à l'oubliette te di ko invité moom la président de la République ci mu jëmbal li nga xamante ni wax na ko ci ay actes dëkk bu neex a am jàmm la dëkk bu neex a amee jàmm la dëkk bu neex a créer toutes les conditions sont là pour que la paix euh, pour que la paix règne dans ce pays alors de grâce le président de la République euh, vous êtes le premier invité ci loolu donc 2024 euh, c'est pas loin continuez xoolal noo toppatoowee sa askan xoolal nooy def ba booy génn booy dem duñ la jéppi man loolu laa am ci loo xamante ni en tant que notre président et mon grand frère ci lu ma lay wax n'écoute pas ce qui euh, euh, les gens qui vous entourent bu leen déglu écoute ton peuple écoute ton peuple yow yaay suñu interlocuteur yow lañu ñu fal faluñu ma Samba wala ma Demba yàlla defal la jàmm def ko ci Sénégal def ko ci mbooleem ku koy sàkku wasalaam. je vous remercie Kilifeu merci également aux internautes et que xam nañu ne a été vraiment difficile à ce que nga accordé affaire bi merci merci beaucoup encore une fois chers internautes merci beaucoup c'était tout pour votre émission réponse à l'actu à la prochaine.